donc li tax ñuy àddu tey mooy président Macky Sall dafa waxtaan ak Thomas Bach nga xam président comité olympique bi nga xamante ne dafa am lu bett àdduna bi muy Covid 19 jaaxal réew yi plan yi yëpp mu changé ko jaxase yëpp ba nga xamante ne xel ak responsabilité mooy tax nit mun cee avancer am ndam. que situation yu mel nii mënoon naa am annulation waaye. comité olympique wanewaat nañ ne dañu am confiance ci Sénégal am confiance ci président Macky moo tax ñu nangu report bi ñu dem ak moom ba 2026 loolu nag defe naa ne président Ndiaye Ndiaye ak dox bi ñu ci jot a dox Ibrahima le président du patronat les villes concernées dox yi ñu ci jot a dox dañuy jàpp ne bu ñu ko reporté bénéfice lay doon ci ñun parce que jéego yu am solo def nañ ko ci experts yi ñëw nañ fii Ibrahima ak Njaaña waxtaan nañoo ak ñi waxtaan war a waxtaanal partenariat yi ñu noué ak France nuwee ko ak Japon ak dëkki Afrique yi ak patronat yi pour ñu jàpp ci organisation Jeux olympiques yi defe naa ne loolu mooy wane ne am na expérience boo xamante ne gagné nañ ko ci am na jéego yu wóor yoo xamante ne def nañ ko ci ba bu ñu ko yóbboo 2026 defe naa ne day gën a yomb pour que ñu mën a nekk ni ñu ko bëggee defar ko au-delà du Sénégal ñu def ko pour suñu continent confiance bu le mouvement olympique international am le comité olympique international am ci suñu réew am ko ci njiiti réew mi moom moo tax tey situation bi décalé wu de 4 ans dina tax ñu gën a mën a fagaru continuer liggéey bi ñu sumb pour su ko defee mu nekk ndamu Sénégal nekk ndamu Afrique maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam